Eh. Dasa fàtte. te bàyyi bàyyi. eh teel ma sa loxo. te yéel sa loxo booy. teel sa loxo yow soo ma nee jàkk rek xam ne man du joxe loxo booy information bi laa jot léegi. léegi booy la moo xew xamoo lan la. ok ok ok ok nuyu mu ma ñàkkal keesa. asa ah, lii nii nga def sa kanam gi nii. da ngeen na dof wala lan la booy coronavirus bi dafa ñëw booy ci réew mi. coronavirus baa ngi ci réew mi. lan mooy loolu. coronavirus feebar la feebar boo xamante ni c'est international c'est mondial monde bi yëpp ñu ngi koy wax ñu ne fii ci senegal lii nag lay bañ taqaloo beeg yooyu. yaa ngi dégg booy xam nga la laa bëgg mooy nga yem sa kër booy yow xal Idrissa yow a yow amoo famille ah Idrissa. moom kay xoolal bul bul wax sama tur. yi nga doon wax boo ñëwee ci kër gi naa naa la nuyu. ma ñëw di la nuyu nga may nga may nga may ñaaxal kersa. nag la ñuy bañ nuyonte bi yeeg takkaloo yi ngeen di takkaloo yi yaa ngi dégg ak naan kafe jox kii xelli benn kaasu ataay ñëpp bokk ko yooyu la ñuy bañ. Eh, Sénégal gii nag teraanga fi xew. kii ama koo bëgg moom moom moom jeex na tey. mbëggeel gi nag day puus mbëggeel gi day lépp lañu ñu yaa ngi dégg bu baax yow. yow waxuma la sax yow quarantaine mais yow dama lay mille ten deux mille ten laa lay def yow waaw. moom père bu la neex nga def ma ko waaye yow mi ba ma defee quarantaine nga def sa bopp soixante soixantaine est-ce que ay dégg ñun demuñu dikkuñu ñu ngi toog fii di wax nga jóge fee rek dégg sa benn xaw ma information xam nga lu mu doon nga ñëw fii di wax waxu dof yi ah moom la ñuy toog xaw ma corona xaw ma xaw ma xaw ma koroket ñun suñu yoon nekku ci. Touba la. waaw yow mii nag di dem. yow yaa ko nar a andi. ndax yow mii yaa may xas te yow fu ma def ma dajeeg yow. yow mii yow mi nga xamante nii mbalta mbalta nga yow yow fu nekk yaa nga fa yow yaa ngi ci biisi yow yaa ngi ci sareetu mbalit mbaliti yow yaa ngi ci supéeri yaa ngi ci xewi di jënd café te booy xam naa la doo Baay Faal da ngay Baay Faal Baay Faalu man xam naa tarixa bi nga bokk xam naa la bu baax. man bàyyi leen yooyu. man man man bàyyi faa laa. te sax yow ah. te sax yow yow laay waxal yow. yow yow bientôt yow da ngay génn kër gi yow. ndaxte kii yow yaa ko fii héberger. yaa ngi dégg bu baax ah sa copain la. léegi nag relation d'amour bi nag day dakk ah. lépp la ñuy kaaran mbëggeel gi day pause amour bi pause sëy yi ngeen di sëy pause te yéen ñaar ñi man man maa ngi dem quoi ah, père bi dafa dafa mel ni ku mandi quoi eh, ah aw anga mandi ku la xool xam na yow gees manga man yàggoon naa koo xam ndax yow areetu mbalit yi ngay wax noonu man ama dafay gis ku la xool bët yu xonk ya ak say yeelu yeelu baadoo la nga xam ne yow ba ah, bàyyi kan gis nga ah, mi mi mi may saaga waaw bàyyi ko bàyyi ko yow moom tey ça ne va pas xaw ma loo jëlee si biti yow lan la nii. kay dafa ah, musuwaar bi ngay mel ne. sage femme ni booy maa maa ngi dem. eh papa taxawaa taxawal kan. Ok, azet, azet, azet, azet. Moi, si j'étais à peine à rappeler. Eh, papa, yo là là. Yo là, moi, dans ce dos, il m'est dit, mon nom, tu sais, là là. Quand yo véro, quand yo véro, le coronavirus, le bout de bobo, boo xamul coronavirus coronavirus feebar bu existe la te gouvernement bi dañ cee jël seen seen seen matuwaay yu ma sëkk yow nag man respecté woo ma ndax boo ma respecté woon doo fóonante ak Idrissa fii may gis yaa ngi dégg bu baax feebar bi dafa am dafa existe dé leen raxasu ak saabu ba mu set wecc bàyyi leen nuyoonte bàyyi leen bis yi ngeen di jël bàyyi lepp lo xamanteni ni rek ndaje la gouvernement bi da koy bañ. yaangi deg de dee leen raxasu ba set te leen xalé ni ku nek mettre sa bop en quarantaine sénégalais bu nek yow yaa war a sa bop sénégalais bu nek yow yaa war wattu sa bop yow na xamna ni yow yow yow mom xamna ni mom fever bi mom yow ko fi ñëk indi yow nga bëgg bëss mais xamna bis boo fi coronavirus. Eh, yow eh ma le wara demaan xomul ma lool yow rek lay mais eh, papa yow ëppal nga de sa daw yu métti man damaa tiis sa nga ñëw ay coronavirus ay lu ne ak ah, sa mouchoir bi xaw mouchoir xaw la nga jël def ko sa bakka nga mel ni meg sa yow lan la hmm. maa Idrissa dañoo bëggante hmm. te bu ma defati yii de dégg bu bul ma fekkati ma togg ay Idrissa nga may def yii bu mu ñaar yaa yee wéer sa bopp si miir wis bi da amul koo bëgganteel moo tax way nga toog i moom